jàmm ji sax dakk lañ leen di ñaanal mbokki Sénégal rawatina suñu bokk internet Mourides Info dal leen ak jàmm ci seen rubrique journal de la semaine. ni ñu ko daa baaxoo ci dimanche bu jot ci waxtu wi tey jii di juróom-ñeenti fan ci weeru septembre atum 2019 li gën a fës ci bopp xibaar yi. dañu koy doore ak wàllum politique transhumance di jóge ci biir parti dem ca bële bàcc soog euh, fekki na euh, rakk ja ca parti APR ginnaaw ba mu jógee ci euh, teranga Sénégal bu docteur Abdoulaye ñaan bu ñu jugee ca loola dañu daal di dem ci wàllu religieux di conférence bi nga xam ne les jeunes d'Armanko doon nañ ko amal fii ci Touba loolee daañu ci defal benn reporter bu yaatoo yaatu noonee la ñuy wàcc ci xutba bi nga xam ne Serigne Mountakha Bassir xalif général des Mourides doon na ko def ci li nga xam ne mooy tabaski ji xutba bu am solo loola itam seen murid info euh, jëlal na leen ko bu ñu jugee foofa dañu daal di dem ci wàllu inondation muy mbënd mi nga xam ne euh, nemmiku nañ ko fii ci diwaanu Touba rawatina ci quartier boobee di Daaru Marnaan euh, loolee itam def nañ ci benn reporter bu yaatu ngir li nga xam ne indi na ko ci wàllu canal yooyu nga xam ne toj na fa indi fa jéey yu mag a mag ba askan wa doon ca def benn euh, manifestation bu yaatu bu ñu jógee ci loolu dañu daal dem ci euh, CRD màggalug euh, Serigne Abdou Khader di réunion préparatoire bi nga xam ne moom lañ doon amal foofee ca Diourbel ngir waajal màggal gu ni mel. ko waxee woon ci ndorteel xibaar li wàllum politique lañ koy dooree bàcc yi soog fekk na rakk ja ca APR ginnaaw ba mu jógee ci parti Teranga Sénégal. Cheikh Abdou Mbacké moo ma doy def naa ko bunt pour dugg. ci parti APR jappelé président Macky Sall bis ni ki tay li am solo ba am solo moy bis ni ki tay man bac sok pexé yuma dan nas dan ko gal APR dina def le plus pour barrer la route à l'opposition te buma ko waxé danañ ko gëm dan jël suñuy fétal dan tiire ci ñom hmm? buñu daano dan bu ñu taxawee dinañ dal seen kaw. association des jeunes Darmanko ni ñu leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi amal nañ am ndaje mu yaatu fii fii Touba euh, muy kuréel yi nga xam ne moom moo lëkkalee waxambaane yi nga xam ne ñoom ñoo sant am Amar joxum Diakhoumpa euh, defal nañ am ndaje seen euh, site internet bi di Mourides Info defal nañ trop presse bu yaatu ñu seetaan ko. yeneen mbokk yi sant naar yi dafay dégg yeneen sant naar yi waaye naar bu sant Amar bu loolu la muy dañ fa yàggu yàggu boobu. ba ñu ñëwee kajoor bi ñëwee kajoor it eh, ki nga xam ni mooy ki nga xam ni moo meññ askanu Darmanko gépp képp ku sant Amar man nañu Mouhamadou Lamine moom di naar bu xees bekk mooy ki nga xam ni moo meññ Darmanko yëpp kooki eh, da daan xar baax di ko def wax nañ ni da daan yor menn xar saa bu ko jëfandikoo ba pare dajalewaat yax yëpp bu ñu xëyee mu doon am xar loolu moom ay moo ji la karaama yu bari yoo xam ni mu ko defee ba ni ñëwee ci dëkk bu ñuy wax jéemul képp koo xam ne si ne da ngay sàkku xam-xam soo ko amee nangu ko téye képp koo xam ne ngay sàkku lu baax soo ko amee nanga ko téye ndax àdduna kat du dara ku fi ku fi ku fi am lu baax foowee ko fi bu yow ma xeyaamee di nga ko rëcc loolu moo tax ñu ne suñu xam-xam bii nañ ko dajalee téye ko ni ñu ko mën a téye nag muy ñu fexe ba boole mbokk yi boole ñoom ñëpp ñu doon benn situation des jeunes de Mako muy tijjil bopp loxoom bépp jeune ak foo mën di nekk ak di tàllal loxo suñu mag yi tamit ak suñu waajur yi ñu ñaanal ñu pour lii ñuy bébét ni mu jëm ca kanam jërë ngeen jëf noonee la ñuy daal di wàccee rek dem ci xutba bi nga xam ne Serigne Mountakha Al Bassir xalif général des Mourides amaloon na ko ci euh, jullika tabaski 2018 bi loolee nekk élément bu am am solo nañu ko bokk teewlu. muy am ngeen am sëriñ bi. am ngeen am sëriñ bi. lépp nga ci biir. lépp ngi ci biir. Homelengam. Homelengam. boo ko boo desee sëriñ bi. boo seetee sëriñ bi. moom daf koo indaale. moom da koo indaale. ci tolluwaayam yëpp. ci tolluwaayam tolluwaayam yëpp. jëfe ko ba mu ba mu mat ba mu mat sëkk. jëfe ko ba mu mat sëkk. gannaaw coobare saan borom ji mu def ci moom. gannaaw coobare saan borom ji mu def ci moom. jëfi ngëmam rek la. jëfi ngëmam rek. moom rek la moom rek la wér nan góorgóorlu bu baax nan góorgóorlu bu baax bu ñu gisee doxeenu lislaam suñu gisee doxeenu lislaam ba agsi ci jamono ji ba agsi ci jamono ji nga xool jamono ji nga xool jamono ji nga xool jamono ji bu baax xool jamono ji bu baax setantal bu baax setantal bu baax dafa mel ne li nu suñu borom dégg di digal dafa mel ne li nu suñu borom digal nekkunu ci dëgg la nag dëgg la nag suñ borom moom noppi na ci lépp suñ borom moom noppi na ci lépp bu nu seetee bu nu xoolee sëriñ bi bu nu xoolee sëriñ bi nii nu ko li nu xam ci moom li nu xam ci moom weesuwul gëm boromam. weesuwul gëm boromam. di ko jaamu ci wàllu yëpp. di ko jaamu ci wàllu yëpp. nation lañ ciy taftal muy mbënn mi nga xam ne lor na quartier boobu ñu tuddee Touba Daaru Marnaan euh, askan wa ñoom ñoo génn ci mbedd mi ngir di naqarlu jéey jooje nga xam ne canal ba def na ko. liggéey yu yees yu sumb si Touba mu doon canal wala tali yu yokk indi na ay jéeya ci nawet bi ci askan wi barab yi di ndaamaatu jàpp garage Dakar ñoom day nelawatuñu ndax njàqare yi yàqule lu bare loolu li ko waral mooy. wutaluñ ko canal xama wutaluñ ko ay tiwo wutaluñ ko ab kaaw xanaa jalax ñu ndox mi suñ bâtiment baa ngi nii dina wàcc man taluma ay xale yu jàngi xale ma xale yu foyi fii nag kanaal bii dañ ko liggéey waaye nag bàyyiwuñu xel impact yi muy jur ndaxte ndox mi war na am faneen fu mu war a dem loolee nag moo waral bi mu tawee ndox mi dugg si kër yi nangu kër yi askan wi yàqule lépp luy dund seen njaboot yi nekk en danger bu fekkoon def ko dañoo ndox mi directement fii lay verser ndax dafa def descente ndox mi nag takkuwaayam mel na ni du léegi lay jeex maire bi foo ko natt weesu na foofu population bi am nag ñu si dut baaraam commune bi ndax ñoom kat nee nañu maire bi moo waroon alerter yi si liggéey yu nu mel ndax gàllankoor yi mu mën a jural population bii. màggal Serigne Abdou Khadir CRD bi nga xam ne amal nañ ko Jurbel loolee la ñuy nar keppe suñu ay xibaar di euh, réunion préparatoire buy waajal màggal gu ni mel euh, seen site internet bi ni Mourides Info teewaloon na leen ci jotaay ba ñu ànd déglu ko. dafa mel ne màggal yi ñu def yëpp. dëgg-dëgg mooy fàttali nit ñi seen démb ngir ñu am fuñ teg seen tànk mag ñi fi jaaroon ba am ndam ñoo xam ne bu buñ xeñtoo seen mboor danañ am ndam sëñ Abdou Khadre Mbacké nag kenn la ci ñooñu ci biir njabootu sëñ Tuubaa gi taxawaay yu rafet yi mu taxaw ci diine euh, nekk gi mu nekkaloon nit koo xam ne ku amal njariñ ñëpp la nit ñëpp it yàlla daf defal ko xabul ci ñëpp ñëpp bëgg ko ndax jikko ji mu yoroon ak melokaan mu yoroon loolu nag jàpp nañ ne jamono da koy soxla saa ndax njariñul len mo ci nek waye su kilifa yi jele matwa yu melni fassiyene bis bi jatt mel ni mu mel lolé serigne bi dana ci sante bax bax sante la ci yow gouverneur ak ñi nga àndal ñaan suñu borom sàmm len dëgëral len félicitations yi ngeen def pour liggéey bi ñu def daaw dañ def tout pour que bu deewene également ñu mériter même félicitations yi maanaam lu ñu liggéeyoon ren dinañ ko yok pour mëna rattraper effectivement li xamne non la magal gi di yokko waaw ni ko commissaire waxee dinañ déployer nit nit nam si nam lim bañ toll war a toll ay barrières sans ngeen demandé ni mu ko waxee dinañ ko romb sax xëy na pour mën a am lépp loo xam ne organisation bi gën ci organisation yi yi lañ leen indiloon ci ay xibaar seen rubrique euh, journal de la semaine seen site internet euh, Mouride Info ñu jox leen dig daje ba beneen yoon ñu ngi leen di ñaan ngeen bañ a fàtte benn yoon nag di bés suñu bouton abonné ngir di mën a jot xibaar yi ar bu ñu ko dugalatee dimanche lay doon ci waxtu yi